Babacar Sy Mansour euh, kilifa yi nga xamante ni ñoom dañoo samp euh, seen ndond di liggéeyal lislaam dañuy ñaan yàlla rek yàlla yokk seen leer bu ñu fi euh, wàccee liggéey te yàlla tas ñu ci seen barke te may ñu xàmme nag bu ko defee rek ñu bañ a yàq li nga xamante ni moom la ñu liggéeyal ñoom ca suñu ñu digganteek suñu borom. ay al amin en tout cas parce que tamit nekkoon na kenn koo xam ne rafetal na nag diine gi bu baax a baax ak tarixa tijaaniya waaw di ñaanal suñu borom bi rek euh, fu mu nekk suñu borom bi gën a yokk leeram tas na si barkeem mbégte la ndaxte Sénégal am nañ particularité boo xam ne tey réew yu bëri bëgg nañ ko tey soo xoolee cohésion sociale bu demee ba am fenn fu mu toll ci réew mi ak tamit euh, jàmm ji euh, diggante yi gën a ratax tey kilifa diine yi joué nañ ci rôle bu am solo ba nag comme ni ñu ko waxee rek ñu jëm tamit ci beneen bés muy màggal gi en tout cas mu nekk loo xam ne franchement parler mbégte la ci réew mi. ñu gën a daal euh, bàyyi seen bàyyi suñu xel si ñoom parce que c'est yoo xam ne tey jile sénégalais yi bu ñu bàyyee xel ci suñu kilifa diine rek fépp fu ñu mën a tegu ci lu baax dinañ ci dem incha allah li nga wax doon lu am solo tonton Fall Ndiaga dafa mel ni euh, mag yu baax yi lu rafet rek la ñu xamoon te moom la ñu daan dox euh, te liggéey li yàlla doonoon li nga xamante ni moom moo di seen cofeel euh, seen li li ñu gën a noon bëgg tey jii ci jamono 2017 ak léegi taxu ko yàgg. Mhm. te noonu la bàyyee ay ñi nga xamante ni ñoo ko fi wuutu te ko boobu ba léegi nag ñun ñoo ngi waxtaanee suñu ay jukko waxtaanee li nga xamante ni moom moom la ñu war a defaraat ci suñu bopp est baaxul tamit ñuy delluwaat di fàtt fàttaliwaat suñu suñu kilifa yu baax yooyu. ku ci mel ni al amin al amin Cheikh Abdoul Aziz jar na di fàttaliku euh, asma buñ la waxee ni la euh, na nga waxtaanee. ku am gërëmu mag ñi waaye ku liggéeyal gërëmu mag ñi eh, bu yoboo bul sori jàppal Cheikh Abdoul Aziz Al Amin uh-huh. ndax eh, liggéeyal na waajuram yëpp ba ñu gërëm ko uh-huh. waaye liggéeyal na magam yëpp tamit eh, ba ñu gërëm ko ba yàlla def ko xalifa général des Tidiane waaye mu doonoon tamit koo xam ni doonoon na koo xam ni ku gardé ku amoon dignité ak fulla ci tarixa cheikh la ba loo xëy guddi loo loo guddi guddi wax ko tarixa cheikh bu xëyee moom dinaa la tontu teg la ci yoon ñaareel ba mooy euh, vingt deux septembre yi dafa nduroo ndax ki mu yaakaar euh, di wasilaam di cheikh naamana tidiane chérif euh, le deux septembre la fi jógee waaye moom it le deux septembre la fi jógee kon am nañu yaakaar ñaareel ba tamit li mu daan régler ci suuf moo ëppoon li mu daan régler ci kaw mu doonoon tamit ku oyof Euh, ku mënoon a dégg ba pare digg lépp. tey jëlal lu baree baree baree bari mën a saafara lu baree baree baree bari te du ci booree wax boo xoolee sax demam gi euh, ci tabaski bi nga xamee ni ci la ñu jógee jox na ña mu waroon a jox ñëpp xaru tabaski euh, ka mu waroon ñi mu waroon a dimbali ñëpp tamit dimbali na leen kookoy al amin euh, di Serigne Abdou Aziz yàlla na yàlla yokk leeram te taaf ñu si barkeem amiin très bien mi ngi noonu ñu àddu ci 2018 waxtaanee finale au premier tour de la phase finale de la coupe du monde de basketball wàllum tàggat yaram la ñuy descendi féminin

entre-temps, il y a eu des, des changements, mais euh, devant l'ogre américaine, euh, ñu rawee les 20 points c'est des choses yoo xam ne Euh, franchement parler euh, basketball bu Sénégal moom Sénégal am na ci taxawaay ndaxte soo xoolee sax waxtu wi Sénégal moo nekk pays bu gën a titré ci wàllum jigéen ñi avec onze titres et on espère bien que Soxna Fall depuis Yaoundé. dina indaale le douzième titre comme ni ñu ko defee woon. en deux mille quinze parce tamit mun nañu wax ne. Cameroun réew bu ñu jig la parce que 2015 foofu lañ jëlee woon suñu onzième titre. dem kër jàmbur na jaar fa mu daan jaar na jaar fa mu daan jaar na jaar fa mu daan jaar. ayca mi ngi noonu en tout on espère et on leur souhaite en tout cas ndam loolu lee tamit dalal Baye Assane Seck laa tey wéyal ci ngir tamit mun bokk ak ñun fàttaliku yi Baye noo <laughs> madame Touré. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa waaleykum salaam nuyu na ma la ba baax a baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu madam Cissé. madame yi yàlla na yokk waay. amiin na yokk waay yàlla na yokk. maanta ak euh, <laughs> laaj njaga ak équipe technique bi maa ngi ziar. Aïcha di la dellu ziar bu baax a baax àddu ci 2019 fas yéene waxtaane accueil grandiose à Dakar par la communauté mouride de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom borom mbégte mi dafa euh, gane si woon daan Dakaru euh, taalibe nag dar ko dalal ko jàmm ndaxte nag euh, moo nekk le khalife général de mourides venu inaugurer la grande mosquée Massalikul Jinaan mhm. ah ñun ñëpp a koy fàttaliku ndax Massalikul Jinaan foofu lañ jubalee sax ki nga xamante ni moom moo di papa ak doom di mhm. maître Abdoulaye Wade ak ak président Macky Sall euh, kon nag mag yu baax yi euh, Baye Assane Seck euh, yàgg nañoo liggéey lu rafet di def lu rafet ca suuf kenn niñ ko ko waxee waaye ma fàttali ni la construction avait été lancée le 5 décembre 2009 par Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu di Serigne Bara mu nekkoon sixième khalife général des Mourides en présence du président Abdoulaye Wade donc à juste titre mu nekkoon invité d'honneur mu Euh, sunu maam bi yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. allahumma yàlla euh, na fi yàgg lool te ak wér. fi yàgg te na fi yàgg ànd ak wér. moo kilifa diine yi nekk yëpp. sunu maam bële sunu baay bële Mouhamadou Mactar Laay Serigne Babacar Sy Mansour. Serigne Assane Seck ma ca Canaba. Hmm. ak euh, sunu baay beneen beeg sunu maam bi El Hadj bu sunu maam bu kunt ak xalif yëpp. ak euh, sunu maam Madani Taal. Cheikh Naama Aydara. kay mhm. euh, yaa Seyda. xam nga li xew ci Masaalikul Jinaan lan la woon. c'est une révolution. des mourides ont cotisé. en sus de talibés d'autres confrères ay ay jullit yu nekk Sénégal ñoo dajale seen xaalis. Mhm. du nguur de du banque mondiale du FMI du kenn. ay sénégalais ñoo dajale defar jumaa bu tol noonu bu rafetee noonu bu yànjee noonu daanaka bi gën a rafet ci Afrique de l'Ouest bokk ci yi gën a rafet ci àdduna bi. Mhm. ça veut dire énormément de choses révolution pourquoi parce que on peut nous faire nos affaires on peut régler nos problèmes. mais on nous détourne foofu la yem. très bien on est détourné assez souvent